borom bi nee na wa min annaasi man yattaxisu min dunillahi andaadan yuhibbuunahum ka xubbillah walladina amanu ashaddu xubban nee na am na ci nit ñi ñoo xam ni dañuy jël ay ndend dañuy jël ay ndend dendale leen ak yàlla ba tax moomeelu yàlla ñu koy jox ay mbindeef lu toll ni wërsëg yàlla moom ko nga ni diwey wërsëgalee ku àndul ak diw doo am wërsëg ku toppul diw wërsëg wi doo ci am su dul woon ak diw kenn du texe su dul woon ak diw kenn du lekk kenn du naan su dul woon ak diw nangam nangam yaa ñeme yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg yow yaa ñeme yàlla diw juddu fekk fi nit ñi ñuy lekk di naan mu fekk fi islaam léeg-léeg nga gis ku xaabaabal bu du woon ak diw senegal kenn du julli te diw moomu dafa juddu fekk fi julli fekk baayam di julli yaayam di julli ay magam di julli ay mbokkam di julli mu juddu nekkul Jean nekkul Paul nekkul juif nekkul chrétien dafa juddu ñu tuddee ko turu jullit ndax jullit la waa kon ña julli yëpp avant moom ba ba muy am 18 ans ndeke amuñu julli kon war ngaa xam ne kiy wax loolu dof buy wax la bu du diw wala ku julli fii war ngaa sant diw ku nangam war ngaa nangam ngay xam ne kii xel mi dafa dem dafa laaj ñu delloosi ko ne ko ah, yaa ngi saaraan gis nga li la dal nii drogue bi gën a grave mooy drogue bu nit jëlal boppam te jàppul ni drogue la gis nga boo teewoon héroïne di ko xëcc fii te xamoo ko li ñuy nettali xale bu xamul dara wala mag mu xamul dara bu tiimee héroïne day foog ni euh, nuñ koy waxee ci fëriñ la tiim di teg ci bakkan bi rek di yëngatu di teg rek xam nga ki jël fëriñ di teg fii ak ki jël héroïne ñoo nuroo <laughs> mais degré yi bokkul degré yi c'est pas la moo tax borom bi taala wa tabaarak ne walladina amanu ashaddu xubban lillah nee na ñi ma gëm man yàlla ñoo gën a tar mbëggeel te misaal baa ngi nii saxaaba yi bëggoon yàlla yàllaa leen jaral ñuy dugg ci front di dee mais ñii di wax fii kenn ci sa sëriñ jarul la nga xeex gàddu jaar si amu ci coow a bëri rek ay su ma fekk woon diw damay nàngam ca ñeme yàlla ku ci génn agresseur yuuxu la nga daw ku ci génn agresseur xàcc jaa ci daas nga yuuxu saxaaba yi ñoo taxaw défendre kàddu yàlla ñu leen di rey ñuy kontaan tiituñu de ñu leen di rey ñuy kontaan allahu akbar saxaaba yaa ngóog ñoom ñoo doon wax ni yonent bi ñaanal ma yàlla ma dee tay ndax àjjana mi ngi may xeeñ yonent bi ñaanal borom yàlla mu leer ko day dee ñoo doon wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buggumaa dellu sama kër damaa bëgg a dee ci yoonu yàlla moo tax walladina amanu ashaddu hubban lillah yàlla nee na ñi ma gëm wallahi ñoo gën a tar mbëggeel ndax man yàlla jaral naa leen ñu dee jaral naa leen ñu sacrifier seen bakkan sahaaba yi ñaataa dee Umar ibnul Xataab Bilaal ibnu Rabah islam moo ko jaral ñu di ko mbugal di ko teg lu ne mu naan ahadun ahad Amir ibnu Fuhayr islaam a ko jaral mu dee te day yore sa làmmiñ bu rëy naan maay kii da dofu sëriñ diw laa naan waaw dof rek nga mën a nekk koo fi dégg ku naan dofu sëriñ diw laa wax na dëgg dof la parce que dafa waroon nekk nit pour jaamu yàlla yàlla bindu la pour nga nekk dof daf la bind pour nga nekk nit ànd ak sa xel mais sa ñàkk xel yóbbu na la ci ndofe ba nga saxal yow dofu sëriñ diw nga ba pare nag di ko bàkkoo borom bi nee ne allahu akbar saa bu ñu demee ba jàkkaarloog mbugal mi ci biir safara id yarawna al azaba anna al quwata lillahi jamia danañu xam ne ndeke kàttan li ñu doon jël di ko jox ay mbindéef mbindeef ndeke ñooñu moomuñ ko ndax ñañu doon wax ñu ngi nii taxaw moo xam ñu dem àjjana wala demuñu àjjana nekk safara tey xam nga ni doole bi nga ko joxoon amu ko doole bi mu woote woon amu ko borom bi nee na iz tabarra alladina tubiu min alladina tabaau foofa ca safara ña toppe woon naan maay taalibe sëriñ diw di way waaja di way nangam yàlla nee na ñooñu ñu ngi commencé dellu ginnaaw mais fa ñu delloo ginnaaw moo baaxul dañoo dugg safara ba pare doog a dellu ginnaaw kon mbokk dellu si leen fii ci àdduna dellu leen ginnaaw ànd ak seen xel balaa loolu du ñëw istabarra alladina tabaru min alladina tubiru dellu ginnaaw di xas ñañu toppoon laa ilaha illa allah borom bi subhaanahu wa taala lu mu ci teg wa raawu lazaaba wa taqattaat bihimul asbaab yàlla nee na gis nañu mbugal mi la leen doon wax démb ci alquran di leen ko wax ci sunna di leen ko wax ci waxi borom bi ñu koy weddi gëmuñ ko tey lañu ñu doog a gëm waaye nag wa taqattaat bihimul asbaab sabab yi dog na sañoo faa dóor nit ci biir safar ndax li nga nekk doy doy na dóor xas rek ngeen mën a waxante mais doo fa fekk kuy song moroomam di xeex bu doon fii ci àdduna nag mën nga koo song yenu ba ci kaw teg ci suuf waaye loo fee mënoo ko parce que taloo ko lan mooy am wa taqattaat bihimul asbaab sabab yañu la naxee woon ne la yàlla li mu defal diw yàlla li mu may diw tey mi ngi ni anam tey gisuloo ko borom bi nee na wa qaala alladina tabacu law anna lana karratan fa natabaraa minhum kama tabarau minna kadalika yurihim allahu acmalahum xasaratin alayhim wa ma hum bi xaarijina min annaar borom bi taala wa tabaarak nee na ña toppe woon al toppe ya mooy ñi doon topp te ànd ñu xel ñu nga naan bis bu ñu amaatoon deuxième chance yàlla may ñu deuxième chance law anna lana karratan ba ñu dellu àdduna billaahi fa natabarraa minhum danañ leen sànni ca gannaaw ginnaaw ca xaj lañ leen di sànni wa natabarraa minhum comme nii ñu dañee ci ñun tey kama tabarrau minna borom bi subhanahu wa taala nee la noonu la leen di wane seen perte ña doon topp jinne perte ñi doon topp malaaka perte ña toppoon jant perte ña toppoon weer perte ña toppoon wali yu perte ña toppoon xut bu perte ña toppoon xawsu perte ña toppoon sëriñ ba perte ndax ki ñu war a topp kenn la mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku la yàlla wax ne nañu ko topp mbokk